man mbeli Diallo la dëkk bi Duta Bulu la fi ngeen ñëw nii Duta Bulu la léegi roughly ëpp na ci area bi 90 something years waaw buñ ko sampee ak léegi ci biir 90 years yëpp por rek ay por rek ñoo feeñ ne ay por rek amuñ benn xeet bu leen fekka fii dëkk bi fii la jógee maam suma maam fii la ko jëlee yóbbu ko fu nekk nii léegi. waaw mos na fi nekk. fii la ko jëlee yóbbu ko fu nekkale. waaw suma maam. baam baam ku ñëw ak baam Diallo. baam Diallo waaw moo ko jëgee jëlee fii yóbbu ko fu mu nekk léegi. léegi nag kooku mu ngi gaañ 1978 waaw kooku heure la gaañ waaw moo jur sama papa waaw time bobu bala mu ngi ko jël fi ku ndondi wa di mo nek Ba moo nekk waaw Gallo Ba moo bi fi bu gañu suma mam ñew jël dekk bi ci loxom waaw loxo doma mi parce que booba doomam yi ñu ngi ndaw ñu yobul len Sanjaan waaw xamna di nga na tur ko ku ñu wax Ousmane Ba waaw former MP tay ni jam waaw sok la souf dañ laa dogal rek dañ la dogal kër duñ la jaay duñ la leb soy dem fi ngay bay sa suuf bi waaw presque tol so sax soko ko fi so su fekke ne alkali bi amul lum la jox dina la dina la wang ne ñun amuñ fi tol buñ la jox presque man sax su ma suma lima wara bey su suma deuyut doyut si lay dem abbi waaw Fi ku fi soxla tol si sosé ngay dem abbi waaw ah dañoo dañoo oo nit ñi ñu yëgal leen am nañ gan léegi su boobaa su fekkee ne suba la ni utal la meew nga lekk ba suur waaw su fekkee ne bugg nga indu tamit ñu ut luñ laa reyal waaw fekkee nit ñi yëpp xam nañ ne suñ gan bi mu fii dëkk sangam la jógee wala compagnie sangam moo ko ekkati wala nguur gi moo ko ekkati xam nga soo déggee duta bulu da nga foog ne mango la waaye du mango jis nga garab bi moom la soosey di wax duuta wala kono duutoo moom la ñoo wax dimb bi lañ ko tuddee fale la ci yoon bi romba ngeen ko lifin dogiti garab bi mu ngi fa woon benn benn la woon léegi kooku bum jógee fu mu bum ñëwee fii foofu la daloon fale ci yoon bi ci kaw yoon bi léegi ñu ngi ko wax duuta bulu kuntu waaw benn benn mango alla bu am benn bànqaas loolu moo indi Douta Boulle waaw fii moo nekk place bu ñuy waxee ne duutabulu comme dinoonu leen déggee rek ñu ko waxee lii mooy duutabulu ñi ah, ñu naan ko ndimu si faana faana ah, ni fii mooy ah, seen bantaba bi fu ñee toog ñoom mag yi toog waxtaan fii la ñuy waxtaanee lépp loo xamante ni dafa soxal askan bi soxal li nga xamante ni mooy dëkk bi lii nag mooy duutabulu mbete ñu naan ko ndimu si kàllaama olof lii la paa bi doon wax ñun de fii am nañ fi ci boori penku bi am nañ fi kay bu mag ak benn tawa waaw ci boori penku bi am na foofu tamit ay guy waaw ci boori Saalum ni am nañ ñeenti bantaŋ am nañ fa taba tamit ak ay buy yu bari suñ cosaani dëkk bi fii daal sàmm la ak béy eh, ak mbéy waaw mooy suñ cosaani dëkk bi soose ñooñu toogloo moo toogloo suñ maam yi suñ maam yi mataar yi ñoo leen toogloo suñ maam tamit bu mu ñëwee soose yi la dal ñu toogloo leen waa Dibakunda yu nekk Farafeñ ñoom ñoom moom suuf si. fii fii tamit Dutabulu la waaye fale moo nekkoon penco ci taba bii moo nekkoon bu toogee fii taba bi la defoon penco waaw moom nag fii la nekk moom ak njobootam bem gaañu gis nga guy gale guy gu ndaw bale guy gii waaw waaw bii bii bii bi ngaa gis nii bii bu ñëw jublal ni boobu foofu bu mu gaañoo lañ ko sampa ci boppa bi pour bu réer waaw waaw waaw foofu la moom njob borom alal la amoon ay nag yu ëpp ñaar ñaar téeméeri nag waaw nag yooyu ñoo nekkoon alal bi ak boy ak kar waaw fii mooy waaw bii guy gi waaw nii la tëdd waaw waaw waaye xam nga léegi mbéy mi waaw gis fii béyam yi ak xaram yi fii mag mag a bu mag moo fi takoon foofu la doon eew béyam yi ak xaram yi waaw fii waaw bayal bi waaw surtout bu mag yàggutat lifin yàggutat de fii tamit Douta Bulu la. waaw Douta Bulu yëpp Douta Bulu la moom kay benn dëkk benn tur bi rek la am. waaw Douta Bulu rek. buy yëpp suma maam moo leen tudd fii suma seet yooyu ñoo leen tudd fii waaw moo moo ñoo eh, ñoo ñoom tudd fii buy waaw kay gi nag time boobu nekkoon nañ foofu tamit nekkoon nañ ci kay gi tamit bu mu nekkee ci kay gi bee mu seet xam-xamam si xam-xami cosaan yi mu xam ne léegi kay gi mu ngi bëgg a bañ léegi mu ñëw nekkaat ci ron taba bi waaw tun xale yi fii woon sàmm la rek ay béy ak ak mbéy waaw waaye indi indi indi 70 lañ commencé di dem school waaw 79 la fii commencé di dem school waaw ci biir 79 boobu nag ba léegi am na ñoo dem school am na ñoo dem sàmmi am na ñoo dem daara ñu bari sax ñu ngi ci daara bi léegi fii sax léegi nañ fi école yi daara fii mooy daara bi oustaz baa ngi nale mooy Ablaye Diaw waaw di jàngee waaw fii la xale yi di jàngee eh, xale yaay moo ci gën a am eh, lifin parce yaay bi ngay kelal Wow, balaa ngay muna andak sa dom bi su ne dom bu góor la balaa nga mun a ànd ak moom yaay bi nga koy nga koy waxal loolu dañ ko tamu di de parce am nga xale xale la rek dara wa soo kelale yaay bi pël même kii nii si léegi nu suma ko rek dina xam lan la ko wax waaw buñ ni am ñu am garden fi waaw xam nga bu njëkk xam nga léegi nit ñi yow ñu bari buggatuñoo sàmmi xam nga léegi ñu bari daal garden bu rëy lañ am fi wan hectare am fi garden bi daal seen yëngu-yëngu yëpp foofu la ak seen teg yi lu ñoo def nii waaw dañoo teg every Tuesday dañoo teg kenn ku nekk 50 dalasi ñu tasaaroo seen saabu denca seen xaalis sareet la ñoo use waaw sareet la ñoo takka fas wala mbaam waaw eh, néeg bu nekk am na am na history ma ñun suñ suñ kaabila bi suñ suñoo maye yaay gi dina yegal mbokkam yi bi tamit dina yegal mbokkam yi ba pare can bi nag la moo doon ak tuuti xaalis waaw Hmm. Wow, wow, wow. belegi nak amna, am nyun fi amut fi, wow, amon nanak, wow, waaw man suma bapa, amna suma bene raka lulu mayon nako tof tai, wow, wai mujugi fai hamne liya ne wa, wow, nyu nyu andak mom, wow, mungi ak mom, legi mungi am ido. Wow. waaw ñun dañ am fii eldas eldas living lu ñuy wax eh, magi dëkkay ñoom seven of dem ñoom la ñoo yëgal suñ ko yegalee ba pare ñoom tamit dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo eh, réeroo léegi ñu waxal bala moo dem ci chief wala moo dem police waaw ah, waaw waaw non ñun kay suñ amee lu ñoo ñaan dañoo dugga si jàkkay wala ñu groupe su fekkee ne maanaam yu mel ni ndox ni moo manqué walla yeneen soxla dañoo toggal laak nii def ruy ak meew wala ak soow indi ko fi ñu ñaan waaw wala su fekkee ne leneen lañ soxla lu ñu <coughs> lejal ni maanaam suñ soxlee yoon comme nuñ sogle ni yoon wala ndox ci jakkay lañu dem su boba ku julli mu ñaan suñ julle be pari tamit ñu tok ñu def salatu ala nabi ak salatul fatih waaw ñu ñaan waaw waaw waaw fi fuñ tok karab bi ngay gis ni moy bande moy penchu waaw affaire yi ak dimbalante moom loolu moom wa dëggaane yàlla loolu fii lañ ko fekk ba léegi ci affaire yi mbéy mi soo demee ba yow nga pare te morom sa morom parewul wala sa mbokk parewul dangaa dem foofu nga dimbale ko waaw ba pare loolu fii lañ ko fekk ba nag ba léegi loolu dañ koy def affaire yi eh, développement bi nag moom time boobu macha allah time boobu ak léegi bokkul presque time boobu fens amul ay sakket la ak ay rabb néegi ñàkk xam nga loolu yëpp yàlla dimbalee nañu mu ngi wàññeeku bu baax a baax ci kaw ndimbali yàlla waaye dimbalante bi moom mu fi ba léegi jigéen ñi dañ ko di nga wax dëgg la xam loolu cosaan la woon waaye léegi seer yooyu dañ seer seer boo xam ne eh, pour ñi ko rabba tuuti ngeen fekka fi borom tuuti rek gis nga waay dafa seer seer yooyu dañ seer léegi parce que da ngaa ji seer bu nekk 400 dalasi soo ci naree def am nga bu baax bi wala bu rafet bi dafa dem ba 1000 plus waaw loolu moo tax léegi kana time to time nga jis benn jigéen amee ko waaw maanaam suñu su moo dem nii xew wala ci dabaram doomam di ceetale nii mu génnee ko solu xam nga muy cosaan waaw suñ takki mag yëpp ñooy oote ak jigéen ñi dugg ci dëkk bi dugg ci eh, dëkk bi oote ñu pare góor yi nekk ci biir néeg bi ak ak bàjjan bi ak ak lifin xal bi ñoon noon ñaari jigéen yooyu rek noo doon nekk ci biir néeg bi fu góor yi nekk su boobaa su bagage bi ñëwee ñoo koy génnee ñu seet ndax correct na ndax correctul lu ci manqué ñu ne ko lii manqué na moom ñaari jigéen yooyu su su dara manqué ñu ne ko lii baax na rafet na su boobaa nag ñu ñaan ba pare ñu wak can bi ak nag bi waaw can bi mun nañoo wax 5000 mun nañoo wax 4000 ñeneen ñi ba 10000 ñeneen ñi am nga amul waaye xam nga par néeg la néeg la néeg bu nekk ak lum casaane waaye nag pol moom ak lum ndaw ndaw su ñëwee ba ci maye jabar mu al foo mu wax la danga def nag presque ñun boobu lañ xam boobu lañ fekk waaw. waaw waaye loolu woon la woon loolu woon la woon parce am nga léegi bàyyi léegi wala waajur yi léegi bàyyi nañ loolu kuñ la joxoon ñu ne la kii laa moom nga koy jox waaw bu njëkk a njëkk a ñeenti ñaari kompoleel la ñaari kompoleel buñ doon di takka foos takka ñaari kompoleel la ak benn set lañ doon di indi ak ay saabu ak ay bula ak seetu xam nga ak ay càkka xam nga yooyu lañ doon di indi loolu dem cakkay dem ba ñu bàyyi ko di indi ay ceen ak ay seetu gis nga loolu nag loolu la jigéen yi di xam eh, loolu la jigéen yi di seet ci biir néeg bi suñ ko seetee ñu ne baax na léegi nag jigéen yooyu dañoo génn wala ñu toog déglu suñ toogee góor yi suñ canee ba pare léegi nag ñu wax la yow ngorokkat bi ñu ne la da nga war a dem ci diw Gorgi Denawa dina wax ñaata nit la la pour kuy out jabar bi dem fofu pour ñu kam ko so gisee lolu yop pour elek ak sibir bala nga ngaa sa sa sa goro ci ci dara waaw wala ngeen kulo ci dara lo ne lo kulo ak mom wala warul laa fekk si place wala yaw tamit warul laa fekk place lolu mo don tak di ebal kuy ngoro mu dem yobul la guru gi nga ne moy domi diw wow, wow, wow, wow. ah am nga nga laaj ku ci ku yore problème bi su boobaa ku yore problème bi su fekkee ne sa doom la yow sa doomi jigéen bi la moo indi problème bi dang ko wax ne du nii dégg te doo doo doo ko ci fekk ko ñaak bu baax mu dellu si sëy bi su demee nag ba mu ak yow nga xam ne am nga ñu bari dañoo wax ne eh, doom moom doomu jigéen moom yaay bi la mun naa am tamit yaay dañ ci dugga fekke papa bi yegul waaw soo demee bëj nga xam ci loolu danga waxtaan ak ñoom si yar ak teggin suñ la fekkewul nga xam ne sëy moom dana dem waaw ñu bari nag dañoo fayeeku tamit dañoo bàyyi rek ñu ne ngir yàlla ñoom sëy bi foofu la ko yalla yemalo amante yermande ak respect Fi barina fi trop waaw ko ci laal rek laal nga kene definitely parce que ñun ñop ay mbokal lañ te ñun ñop ay julli amuñ kerte amuñ dara ñun ñop asadu an ilaha illallah lañu wuyo waaw xam nga fi ci guddee waxambaane yi ñooy génn di nekk ci ci mbedda waaw ak xale yi jigéen ak xale yu ndaw yi waaw ni nga xam ne maanaam spécialiste si weer bi génnee waaw ni bari xale yu ndaw yo xam 15 dem be 20 nyop fi ci ci mbedda bi la ñoo nekk waye yu ndaw yi mom li nga wax ñu bari dañuy lepp seen seti lolu mom be legi wallahi xale bo gis dafa wara am mak parce que mak mo xamoon démb kam tey so lolu lu am solo la kutu n d i n kela alina ben mbe ya dan kan kilina ninni w a sabari n t y e n a na na na yo sabari me d u n i a bara